salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki internet bi mbokki bàyyi xel MPROD te tey sees nañ jàmbaar ñaan ko tu yàlla muy Serigne Bara ñaan borom def gis di jàmbaar di ko nangoo sonn ci ñaan mbokk yi xam-xam jaral ko lu ne xam-xam jaral ko génnoon Sénégal dem uti loo xamante ni da ko jëli ji woon andi ko dolli ci li nga dolli ko ci li nga xamante ni moom la doon ci ay maamam ndax ku ne xam ne na ne Serigne Cheikh ñaan Niane buñ ko tuddee xel dem ci ñaan yàlla ku xam fi mu bokk xam ne ñaan rek la ñuy def. waaye dafa dem gëstuwaat dolli ci ngir lan xam-xam doy danañ waxtaanee mbokk yi lu yaatoo yaatu tey nag am na yu bees sàq yu ñëw ci kër gi te yaakaar naa loolu lépp danañ ko leeral ci émission waaye laata loolu dañ lay bàyyi sëriñ bi nga nuyoog askan wi lay seetaan ci improte Cheikh Bara ñoo ngi lay ziar. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim man jaa bil xasanati falaw asram saliha ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyoo nuyoo bu sell di nuyu bu lislaam di nuyu jullit di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taxala wa barakatuhu di nuyu mbokki julli yëpp ak mbokki taaliba yëpp ak mbokki lislaam yëpp di leen nuyu nuyu bu sell képp koo xam ne yaa ngi siiful foo ma di nekk ci àdduna bi yàlla na yàlla defal jàmm yàlla suturaal la yàlla aar la yàlla dul la tawfiix ci daraje seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taxala wa Baara ñaan borom def gis tey ma bëgg waxtaan wi ñu njëkkee ko ci li nga xamante ni moom mooy néew kàttan parce que néew kàttan nekk na mbir moo xamante nii lu doy la te lu lu yéeme la mais rawatina infection tamit bokk na ci li sonal doomu aadama yi néew kàttan fatt na nit ñi da gis koo xamante ni day sëy ak soxnaam du ca mën a jot wala bu cay jot. gërgëdee gaaw wala koo xamante ni day jékki-jékki di saw ba ci yàgg saw ma jékki-jékki di génne ay couleur infection nekk lu doy waar loo xam ne sonal nit ñi nga ne ma yor naa secret yoo xamante ni du jël temps te dafa gaaw ci faj nit ki sabaara secret yooyu laa bëgg nga développé ko. alhamdulilah néew kattan li ñu yor moom danga ko def ci lepton wala nga jël limon pàccale ko ci def ci sunguf si. boo xam ne ñetti fan néew kattan bi day wër ba seet wécc ñetti fan. 3 jours waaw bu fekkente ne infection bi la. day segg sa biir bi raxas ko def ci loo xam ne li nekkoon ci taq-taq yi mu génne ko ba na ñu néew kàttan ñoo xam ne ñu néew kàttan ñuy faju ba sonn wéruñu gis ñu dara xamu tax dafa am seen buti yi dafa am benn sax bu nekk foofu ci ci naq bi seen naq day metti naq boobu infection lay tudd naq bi dafa am benn sax bu nekk ci naq bi parfois mu yëg di metti am ñoom dañu néew kàttan seen naq day metti naq boobu di metti dañ koy faj fajaat néew kàttan ñun loolu am ba pare ñu joxale frotté bi wax ne boo ko ci diw euh, sàkkara si siddi yi day yeewu xam na gis ñoo xam dañu naan la dama utiliser benn garab néew kàttan gis naa ci euh, seen sidit bi yi nekk ci naq bi mooy metti naq bi bu saw muy metti wala bu loolu moom lii nga xam ne mooy sunguf kàttan bi moo koy dindi te képp ku ko jëfandikoo trois jours incha allah rabbi résultat bi am immédiatement Serigne Cheikh Bara Niane ndax li nga xam ne mooy Euh, sunguf bi mhm. dañ ko def laboratoire parce que mi ngi war a jeex le 22 août 2023. kon mbir mi dañ ko seet segg ko bu baax a baax. dama am ay laboratoire laa am spécial yoo xam dañ koo étudier depuis au ah. Ghana Accra you know mhm. because my medicine. yenn saa yi dama dama dinañ wax olof sax que ñu ëpp olof la ñuy dégg. Euh, dañ ko xam nga Cheikh Bara tamit international la fi toll nii am na ñoo xamante ni surtout sa taalibe yi jëflanteel ci Ghana ak Akara waxal ñoom tamit parce que suñu bi nga ko gisee ci internet boo xoolee commentaire yi ñu ci bëree bëree bëri sax amaan duñu ay Sénégal parce que yaakaar naa ci bitti ñoo gën a xam Cheikh Bara Niang. non because I'm greeting all people from Africa. loolu moo leer na maa ngi nuyu ñëpp ñoo xam ne ci africain lañ ci àdduna euh, euh, que loolu moo la Euh, dañu am laboratoire spécial boo xam ne dañuy dañ ko defar dat ci wàllum kaaraange bi yonde seen mm-hmm. ok dégg li nga xamante ni Serigne Cheikh Bara ñaan borom def gis wax na ko moom nag nee naa la wàllu ñaan yàlla nekkul ne Sénégal rek ñoo koy ñaan loo léeg-léeg ngay woote ci numéro yi di jot baat vocal doo ko jot fekk génn na dem na ci dëkki Afrique yi moo xam fu mën doon rek ngir jëflanteeg jaam yàlla yi sëñ bi cuuraay bi nga xamante ni nag moom man gis naa façon cuuraay bu nekk ak li nga xamante ni mooy damay bàyyi nga développé secret cuuraay bi damay bàyyi nga développé secret bi nga xamante ni moo nekk ci cuuraay bi ndax ñam naa ko tax xam naa li ci nekk waaye damay bàyyi nga développé ko sa sa bopp. cuuraay moom yaakaar naa yoo xam nga ko yow tamit yaa na yoo xam nga amuloo ci xam ndax mooy cuuraay jar jar jar jar lañ ko defaree. maanaam jar gi. cuuraay bi jar gi ni ñu ko defaree mooy dañ ko dëbb. Mm-hmm. mokk. Mm-hmm. boole kook ay secret mbiru baatin. Mm-hmm. yoo xam ne boo cuuroo saytaane rab liggéey xat-xat kayit mboolem loo xam ne lu yàqal doomu aadama day dañ ci lu mat yoo xam ne ay xat-xat da koy dindi cuuraay bi 99 xat-xat da koy dindi. dégg naa xet gu neex la yor. alhamdulilah 99 xat da koy dindi cuuraay boo ko jëfandikoo 99 xet yoo xam ne dafa bon 99 loo xam ne ay mbiru yoo xam ne ay tolof tolof la. li ci gën a ñaaw mooy mbiru rab li ci gën a tuuti mooy rab. Mhm. boo soo rab du la jege. Mhm. bu bon du la jege. jënd du la dugg. saytaan du la dugg mboolem loo xam lu bon du la dugg rab. ñi ci ëpp dañ ko jënd am na ñoo xam dañ ko ñëw jënd ci ñeenti pot wala quatre pot wala cinq pot. pour seen njaboot. di ko sóoru ci kër gi moom moom jëru nga naan da di tugg di sóoru. moom na la xeeñ rek. rab du fa nekk bu dee da ngay tëdd guddi di gént di yuuxoo yu mel noonu wala gént gént yu bon wala ngay toog guddi ñu lay xeex wala fi nga nekk am ñu noonu ñu la bañ cuuraay bi ci gën a gaaw mbokk mi yow mi nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew dégg nga cuuraay bi nga xamante ni Serigne Cheikh Baara Ñaan moo ko jël defalee ko jar moom nag nee na la wàllu médecine da koy saytu ci laboratoire yi maanaam dara du ci am effet secondaire bokkut ak garab yi nga xamante ni danga koy jëfandikoo di am problème numéro téléphone yi jëlal 75 010 17 17 wala nga woo ko ci 78 586 47 47 wala 76 283. cinq 35 35 Serigne Cheikh Bara ñaan nekk fi ci diwaanu Cambérène ci boori géej gi di jàmbaar di ñaankatu yàlla di borom xam-xam di wàllu sëñ bi socc bi nga xamante ni nag day am parfum socc bi moom socc bi moom parfum buy am socc bi. nga xamante ni nit ñi surtout surtout waa bitim réew waa bitim réew man jàpp naa ne dama dama leen wax lu bari naan leen Serigne Cheikh Bara Niane yor na leen loo xamante ni bokkut ak parfum bi ak socc bi mais ñoom dañuy insister ci parfum bi ak socc bi parfum bi lan la ba tax ñu ciy insister waa bitim parfum bi moom li muy dafa bari mm-hmm. ndax bari gi mooy boo ko jëfandikoo parfum bi mm-hmm. bayra mm-hmm. wërsëg ubbeeku foo foo jublu yiw yàlla fa lay daje parfum bi ak ak socc bi ñu ànd da ngay parfum parfum ba parfum bi jeex nga jël socc bi di ko soccoo waaye da ngay def xorom ak lem ci socc bi di ko soccoo socc bi nii la toll mu ngi ci biir bitéel bi doo ko xam socc bu ndaw la bu ndaw mais bi est-ce que mën nga ñoo wax socc bi socc lan la tamit socc bi dafa am waxu bukki bukki am na benn tànk bu ndaw bi nekk ci ginnaaw tànk bi. Mhm. tànk boobu lañ boole am luñ ci def mbiri secret du neex expliqué ci télévision waaye daal you know. Mhm. because that is secret is very power is I don't talk. li waa gannaaw ko xam. <laughs> ok ok non xam nga sarale la may jox sama diplôme diplôme bi. Mhm. te diplôme bi nga ko sarale woon fa la may jox diplôme boo xam ne pour ñaan. te diplôme bi dinañ ko génnee yéen. xëy na pour nit ñi war nañ ko suñ émission yu bëree maa ngi ne la mais danañ ko wanewaat. waaw kay parce que dañ ko gis fan yii damaa dem damaa dem Nigeria temps yële benn télévision bi nekk Nigeria ñu may dalal boo xam ne anglais anglais lañ doon wax ci ci télé bi ñuy waxtaan xam nga ñoom dañuy jékki-jékki nit ku nit ku ko xam ne mënut a dox pasteur dañ koy def pasteur yi église yi. Mm. cooy yi ñuy mooy ci anglais ci english mooy euh, église. Mm. ci english mooy sorry euh, ci français mooy église. ci anglais mu ñëw ñu ne church. pasta ñu ne pasteur. ci France. Hmm. French you léegi ñuy doxloo ay lefee ma ne leen yéen li ngeen def nii man mën naa ko du dara ma jël sama loxo. Hmm. jat li may jat. bisimilah sax la bisimilah max laay bana googu sama jigéen bi samsam bi tamtam bi hal ya gun bilya bi samsam bi tamtam bi hal ya bikun badan badan badan kun salama wala ma siri sigi sara sigi delli ma jël par ci lu tànkam raay ni tànk bi mu jug dox te laal la fañ. allahu li nga def ci Nigeria. Nigeria you know. Mm-hmm. because this secret is very half is very power. moo tax ma ne la am na yu bari yoo xam ne du ko wax ci télévision. Mm. waaye socc bi du ma ko mën a leeral boo ko dee soccoo loo wax ni mu def ko ci gàttal foofu laa mën a yem mbokk yi dégg li nga xamante ni socc bi tënk na ko waaye leeral na ko man nag xam naa ne waa bitim réew moom jàpp nañ ne Cheikh Bara socc bi ak parfum bi rek la yor liñ koy laaj ak liñ koy commande bari na trop trop Cheikh Bara boo ñëwee da nga fekk nopp da nga fekk li nga xamante ni mooy wàllum faj surtout li nga xamante ni mooy affaire noonu affaire noonu sëñ bi nekk lu doy waar nekk lu jaaxal doomu adama yi noonu mën na laa yàqal noonu mën na laa fay noonu mën naa yàq sa àdduna ci ay seconde nga ne war naa secret boo xamante ni pour mbiru noonu. waaw noonu moom <laughs> noonu moom yaakaar naa li ma ci yor su fekkente noonu boo xam ne arrêté wul. noonu boo xam ne day dëkk di la def dara di la def di la def mm-hmm. li ma yor man. Mm-hmm. li ma yor man. Mm-hmm. soo ko defee xëy suba sëna moo ko sa kanam gi nii benn yoon ñetti fan nga ko jëf ñetti fan. benn fan nga gis ko ñaari fan nga gis ko ñetti fan nga gis ko bu la bàyyoo dina faatu wala mu jógee fi nga nekk dem beneen dëkk mooy bitéel bu ndaw bii ma la nii. mais sëñ bi mais est-ce ko nekkul ne ñu war a faatu bëri na parce que dëkk bi ni dalay xool rek bañ la te doo ko def dara. dama ne la mu dee ku la bañ boo xam ne daa di la yàqal di la bëgg ñu dàqal sa liggéeyukaay wala ma lay tuumaal laa wax xam nga noonu bañ ko te defu ko dara loolu waaye bañ ne dee tuumaal wala bañ ne di la yàqal liggéey sel moo ko ñetti fan di ko gis. dégg ngeen li nga xamante ni Serigne Cheikh Bara Niane wax na ko ci li nga xamante ni moom mooy wàllu nopp numéro yi moo nekk noonu ci suuf écran bi 75 010 47 47 wala nga woo ko ci 78 586 47 47 wala nga woo ko ci 76 283 35 35 Serigne Cheikh Bara Niane borom def gis nee la Cambérène gi dañuy ñëw ci këram liir sax bu juddoo li ñuy njëkk def mooy yóbbul leen ko Serigne Cheikh Bara mu defal ko téere yaakaar naa loolu gàllaaju cosaan la te lu fi yàgg la seriñ bi ubbeekaay am nga ci loo xamante ni mbind mii ngeen gis noonu muy daw noonu nga xamante ni. ci wàllu ubbeekaay lay dox wàllum xaalis waaye wàllum tëj doomu aadama ndax nit dana tëju tax xamul li ko tëj sëñ bi mbind moom di daw ci suuf écran bi nga xamante ni wàllum tëjee kaay moo ko tax a jóg. 97 buntu la. am juróom-ñaar fukki ak juróom-ñeent. koo xam tëju nga. ak loo mën tëju nag tëju xam nga tëju du tëju ñàkk am xaalis. tëju du ñàkk am soxna. Mm-hmm. mooy koo xam da bëgg di mos mos. ngay am téeméer bëgg di mos junni mm-hmm. ngay am million bëgg di mos ñaara million mm-hmm. <laughs> ngay am ngay mm-hmm. bëgg di mos ñaara milliard man de maa ngi sant te ku ma fekk sama kër xam maa ngi sant maa ngi ak ay eh, eh, problème sax loolu jëru wax waaye daal de toute façon moom maanaam yëfi ci yow nga ko njëkkee de li ngay def ci xam-xam sa bopp nga ko njëkkee di kon sëriñ si jël car rapide yooyu loo leen mun ñoo ñaan. te te ñu wax ne ñoom yor nañ secret xaalis. dañuy fen laa la wax mun ñoo ñaan dañuy fen mun ñoo ñaan. dañuy fen kay laa wax mun ñoo ñaan. <laughs> c'est-à-dire kilifa goo xamante ni de. man bu ma nee damaa mën a ñaan 4-4 day fekk ma am 4-4. ñaata bi ngay wàcc léegi doo gis bi ngeen ñëw fekk maa ngi doon dem ñibbi sama kër. ak fi ma recevoir ay ñi nga xam ne dañuy sangatu xàmb yi ak ñi xam ne dañuy jëfandikoo ay nangam-nangam bokkuñu étape par étape kenn ku ci la nga bëgg sans départ ci niveau bi. xam nga dañuy affaire ndoxam siti ak la koy yi ñoo ma koy ma la la dangam lii la ñoom ñoo koy faj moom dañoo dem ma xam ko ñoom. ma xam li ñuy fajee naa loolu yooyu fi xale la du yëfi xale sax waaye xam-xam waaye am ñoo xam ne moom a ñu ndamoo waaye man loolu man yàgg na ko faj. Mm-hmm. bët yi metti kasaaleeg bët yoo xam day metti ni ko xam ne bëri day métti allah nuuru samaawaati wal ardi laa koy jëfandikoo bëri yoo xam day métti moo tax ma ne nit boo nee da ngay ñaan wërsëg da ngay fekk nga am wërsëg yow d'abord <laughs> waaye yaa yaa ñaan lu nit ñu am wërsëg amoo wërsëg yaa ngi ñaan nit ñaan nit ñi dott nit fi muy liggéeyee te mënoo dott fi nga bokk yow foo foo dëkk tey bu subaa nga tuxu kon sëriñ day am adresse man de xam nga fi ma dëkk moom ba tey yaa ngi dara la ci ma dëkk fi Cambérène 2 def nga ñaar fukki at Cambérène 2 gi. vingt am maa ngi Cambérène 2 te maa ngi sant yàlla di nuyu Baye laay sama baay sama sama wala sama lépp. xam nga nit ñoom damay wax benn affaire ne leen sëriñ si bari yu dégg ci internet bi seeni maam ak seeni cosaan duñ ñaanikat yu ab bokk. man sama côté yaay ak sama côté papa ñëpp ay sëriñ lañ. sëñ Baara mu sëñ Touba. borom lëkk dey borom guy min borom Mbàkke Kajoor. moo boole ci sëñ Touba. sama côté yaay fa war bokk. kooku ba ñu day ñaan kenn du wax ne kii xamul dara. même bu dul loolu sax boo ma fekkee mbooloo may recevoir sama kër bisu liggéey may samedi dimanche leen lay rek liggéey ak ñi ma ñaanal ñi dama ko ñëw ma ngi jëmm ñoo xam ne dañuy am dama quatre-vingt-dix ans di ñëw sa kër di la ñaanlu loolu lekk kasi naxatu béy waxi kasi tamit naxatu béy mm-hmm. wallaahu yaxtasu bi rahmatihi may sha wala sulfa lil am loo xam ne jagle yàlla tax taxsis la taxsis yàlla ko def ci lu ko sob doomu aadama def ko ci mm-hmm. ak yeneen ak yeneen yeneen mm-hmm. moo tax ma ne la képp ku ne day ñaan lu wërsëg te amoo wërsëg loolu waxul dëgg amul maa ngi ko wax Serigne Cheikh baar Niane duñ ñëw sa kër nag ba dem te laajuñ la sa gis-gis ci réew mi parce que ko aji saar bokk nga ci njëkkoon annoncé ne réew mi dana tàng dana am problème ah ginnaaw kat yéen yéen ko wax moom. Eh, intervenant benn mara. mën mën ñëpp jugaat ñëpp di ma ko wax ba ñëpp jug ñëpp jug topp man mujj toog jàpp sama bopp. xam nga da nga ko wax ma interview benn mara mu ne ma am na koo interview ku ñu wax suñu baara ñaan dëkk bi tàkk dëkk bi du tàkk jàmm mooy am moo tax bu dëkk bi tàkkee ko woon ne ko. ñetti site internet maa woon na ma sëñ kilifa nekk Touba di ay nga xam ne ñu mën a yor ba saa de mën na jëm ba jiite yoonu murit na ma bul ma wax man dama am digal am kilifa wa isa saalaka xibaadi hanni fa inni xarib ujibu dawtal isaan fa lastajibu lii wala yoon bi la xam nit day am kilifa comme kilifa seetaan nekk si kilifa bi ma waxee laa nopp ci affaire yi. mais actuellement noo gisee gis-gisu Sénégal doxinu Sénégal moo xam muy politique wala réew mi rek gis-gisu Sénégal actuellement noo gisee noo jàng ci dëkk bi ci 2021 bi nii. ni ma gisee mooy Sénégal ñu cëpp ëpp nangu ñoo liggéey. ñi ci ëpp ñoo liggéey liñ demoon ñu amee xaalis baax na. Mm. àdduna li ko yàq bokk na ci jigéen ak xaalis. li yàq àddina loolu bokk jigéen ak xaalis ñi fi ñangu liggéey bariwul naxaate yi bari naa feq yi bari wax lu dëgg bari réew moom pour mu pour mu pour mu avancer moom pour mu avancer moom dina jafe waaye nag nañ ñaan ndimbalu yàlla ak mag ñi fi yàlla bàyyi ni mu yàlla ak ñi ma fi mag ñi mag ñi yàlla bàyyi ndax ñaan rek moo mën a defal leen yàlla dina ñaan leen ma may leen addoon ni astajib lakum nan di ñaan yàlla rek yàlla def réew mu jàmm. adduna bi nag dafa nekk ci danger adduna waxuma Sénégal man du ma wax Sénégal du ma wax Sénégal parce que man adduna laay waxal parce que man damaa dem fu ne ci adduna bi boo tax du wax ak bi waa moo tax ma la man damaa dépasse wax ak waa Sénégal man bi laay waxal adduna bi. mooy damay wax ne adduna bi laay waxal ndax dafa am ñoo xam ñu ngi may seetaan xëy na déggul wolof yi may wax waaye xam may wax ci ci seen gis-gis li wolof bi ndax man du wax ak damay wax ak ghanéen di wax ak nigérien di wax ak di wax nangam nangam yu bari. émission bi lépp daanaka ci anglais lañ ko def. damay wax ak ñu bari. li ko mooy man damay làkk créole lépp dama koy làkk. espagnol ak italien lépp dama koy làkk. alhamdulilah rabbil alamin na yàgg a tukki. lékkati ko seen ndaxut yi ba yàlla yàlla def réew mi jàmm. ndax jàmm rek moo fi am ku fenn lu dul jàmm nag moom da nga am problème moom ndax rek moo fi aj ndax baatu Sénégal dafa garaaw. Mm-hmm. baatu Sénégal dafa garaaw. Mm-hmm. seen gi. siin gi junni la nun gi taxaw cinquante xage taxaw huit alif gi taxaw un taxaw trent soo ko adatee am na lim moom taxaw lim boobu mu taxaw nag boo ko adatee am lim boo xam ne xaddu xuruf boo xam ne boo ko jëlee ñoo tolloo ñoom ñaar lim boobu mooy réew mi lu mu gudd gudd gudd gudd gudd gudd ci diine la ñuy mujj réew mi luñ naafiq naafiq naaf ci diine la ñuy mujj yàlla nag dafa bëri yërmande yàlla yàlla jéggal ñëpp baalu ñëpp àq sëñ Baara sa tàggatoo sa kàddu gu mujj sax duma ko wax ndax sëñ Baara saa su nekk bëgg nañ di jàkkaarloo ak yow ci émission yu bëree bëri kon du ma leen sa kàddu gu mujj waaye dama lay wax loo ñaanal askanu Sénégal ak loo leen nii dénkaat. di ñaanal ñëpp di ñaanal sëriñ si nga xam ne ñoo nekk bi di wax ak ñenn sëriñ si génn ñu ñëpp di leen jàmm di ñaanal yow def jàmm ndax xam ne sëriñ si dañu bàyyi yàqante bi ak wax lu dëgg. ak euh, xasante yi ndax xasante amul njariñ wax lu dëgg boo ko déggee mooy waxe olof la mooy nit toog génn nga ne nangam diw nangam diw nangam loolu baaxul. parce que yàlla rek moo xam ne ci xol yi ittaqullaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun yàlla nee na julli dëgg mooy ki xam ne loolu moroom jullitam waaye nañ ñu wax yàqante bi baaxul. parce que nit boo ne da xam yàlla mën naa xëy ci xam-xam kenn xamul yàlla moo xam. te nañ sant yàlla bu baax di muñ di di jaamu yàlla. ndax jaamu yàlla moo fi nekk. yéen di leen nuyu di bañ émission bu gudd ndax temps bi guddi na. te ak temps bi yu mel noonu waaye di leen sant di leen gërëm di ñaanal seen site bi yàlla yokk ko mu jëm ci kaw a kaw kaw ndax ay nit ñu baax ngeen macha allah alhamdulilah disponible lool macha allah ñun di leen ko ñaanal baax di leen gërëm collègue yi xam ne seq nañ koo génn mu yàgg lool yàlla gën koo dëgëral wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fi amanillah dégg nga xamante ni Serigne Cheikh Bara Niane waxtaanee na ko tey yaakaar naa mbokk seen xol seddati na jël leen numéro téléphone nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Bara Niane moo nekk noonu ci suufu écran 47 wala 76 283 35 35 numéro promobile mu ngi noonu affiché 75 010 47 47 mbokk yi doon seetaan jotaay xam-xam jotaay bànneex jotaay bàyyante xel jërë ngeen jëf.